lu ma déggee démb euh, ministre Mansour fay wax euh, ak sax euh, l'État wax en général da ngay am impression que ni ñoom lii di xew nii daf leen a bett alors que quand même ku seetaan télévision Sénégal yi les télévisions privées en tout cas wala nga déglu rajo yi di nga gis ne depuis pratiquement ñeenti weer bés bu nekk ñoom góora a xumma ñoom jàlloo ñaa ak ñeneen ak ñeneen ñi ngi ci dëkk bi ñi ngi ci ñi ngi ci àll bi def campagne dawal nañ seen oto sax ba ci bii fii ci buntu Walfadjri di def campagne pour sensibiliser seen ay membres ne dañuy dem grève le premier et on a l'impression que bi dafa toogoon di seetaan pendant tout ce temps là xëy na dafa yaakaaroon ne du demee nii. Moustapha bett na leen bettu leen. Mhm. parce que dama jàpp ne ñoom euh, fi mu nekk nii nag dafa am éveil des consciences. Mhm. dañu tàmmoon di grève euh, benn secteur di grève mu am euh, des défaillants oui yoo xamante ne état moo leen di soudoyer et autres tey jii voilà tey jii nag mbetteel bi mi ngi jugee ci euh, ñi nga xamante ne dañu joxante loxo ñoom ñëpp def bloc pour mener leur combat et ça a porté ses mais li ci euh, euh, moom moo di ne hmm. on a laissé perdurer pour man hmm. une heure deux heures de grève le ministre devait réagir mais réagirul mu joxaat leen rendez-vous le lendemain le lendemain mu ñëw il nous tient un discours boo xamante ne pour man moo loolu moom moo envenimé la situation quand tu dis que ne ku bëgg a liggéeyi liggéeyil euh, tu mets à profit les gouverneurs les préfets les sous-préfets et les, forces de l'ordre pour euh, ñi bëgg a liggéeyi ñu encadrer la ñu dem liggéeyi loolu lan lay jur loolu moo indi les chauffeurs se braquent les mmh. transporteurs se braquent mmh. mu indi benn bras de démb li muy bañoon ba ki démb ak démb tey moom la nangu tey euh, ji ñu toog di ko waxtaanee mais transport Moustapha dafa mmh. nekk secteur bu stratégique dans son pays parce que transport su grévé répercussion dans d'autres secteurs depuis début grève bi maa ngi koy wax mhm. dans d'autres secteurs d'activité les répercuté wu on nous parle de quarantaine de milliards perdus man je pense que c'est beaucoup plus que tey bi euh, transport grévé les ne sont pas ravitaillés oui. les élèves ne sont pas allés à mhm. l'école mhm. ñeneen ñi nga xamante ne c'est des commerçants dans les marchés et autres demuñu te ñu bëri tey jii li ñuy umpale moo di la ñuy jóge di ñëw centre-ville tey bu fekkee ne kiy jógee banlieue di ñëw centre ville amul euh, transport bu ko indi day obligé toog. Mm-hmm. mu nekk benn man boo xamante ne duñ ko gagné jour boobu. et répercussion bi également au sein même des familles. Mm-hmm. parce que famille boobu kenn danaan xëy dem takkale moom mooy indi dépense le lendemain. Mm-hmm. ñoom mënuñu ko def. et les entreprises fonctionnent au ralenti ah parce que ñu bari euh, du du du a ñëw. du ñëpp ñooy mën a ñëw liggéey si te mm. pas véhiculé doo mën a ñëw euh, liggéey si. mu nekk problème on me dit même que ni euh, cimenterie yeeg noonu demee noonu. mais mooy les gros porteurs qui ravitaillent les marchés et autres ñoom ñëpp ils font partie du transport. ñoom ñëpp mënuñu ravitailler marché yi mënuñu dem fenn les mareyeurs ñu doon jugee si zone des ñaay bi di hmm. indi légumes yi à Dakar lan que. Euh, bi jàllo ñaa ñëwee fii euh, Pape Mokhtar ak maam Biram waj ñi nga fa woon euh, muy wax naan suba nu mu ko waxee woon sax oto oto yi yóbbu jën sax du ñu daw man je mhm. disais que ni non non de toute façon dañuy menace mais mënul nekk mais là la réalité c'est que mooy oto buy transporter dawul ci Sénégal mais mooy li ma lay wax le secret bi mooy lan éveil des consciences les Sénégalais léegi dañu yeewu Mhm. nangootuñu ku leen di soudoyer ku leen di nax mi ngi commencé di mi ngi am tendance à disparaître surtout mhm. si secteur mhm. d'activité yu bëri tey transporteur dañ daan grève am euh, syndicat yoo xamante ne dañuy dem farak nguur ñu duñu grève di jàppale nguur di léser seen yeneen moroom yi tey nag xam nañu ne seen intérêt moo nekk en jeu seen profession mo nekk en jeu mais dafa soulever beneen problème Moustapha mhm. foofu lay daanelee mhm. moo di ne au Sénégal est-ce qu'on a euh, réellement benn politique de transport parce que soo xoolee benn société nationale de transport moo fi nekk te mhm. ay moyens mëtalewul tey ji su mëtalewoon on n'allait pas sentir cette grève là alors Pa Makhtar euh, quand même euh, awa wax na ko sànq nee na deux heures de grève peut-être une heure même de grève des transporteurs waroon na tax gouvernement bi jóg ministre bi jóg ñu teel woote mais duñ bàyyi ba ñu grève 24 heures bay entamer deuxième voire troisième jour euh, ñuy ñuy ñuy a waxtaan est-ce que quelque part euh, mënuñ wax ne peut-être le gouvernement euh, ne s'attendait pas à ce que grève bi jël ampleur bi mu jël nii. non man euh, du ma du ma wax loolu parce que euh, xam naa ni am nañ ay renseignements généraux. Mhm. et puis euh, xamoon nañ. xamoon nañ ne nii lay demee. xamoon nañ quelque parce que bu bu ñu grève parce que aussi ñoom dañuy dañuy dañuy liggéey ci loolu dañuy dañ siy liggéey liggéey bu am solo. Mhm. mais mépris la man mépris laa ko ah jàppee. parce que mënuñu ni dañu commencé mais crédit mhm. Sénégalais yëpp gis ñenn ci sénégalais nu ñu dundee calvaire. nekk ci ay situation yu doy waar mercredi boobu conseil des ministres am président addu si yàbbi aussi mu waxul sax massa sénégalais yi nga xamante ni dañu nekk ci ay situation yu difficile te ñoom ils n'ont rien demandé dañ leen teg ci situation mhm. ñaar ñuy xeex la ñoom ñu nekk malheureusement lu ñu mën a tuddee ay dommages collatéraux mais massa sax dégguñu ko ci président de la République mhm. donc loolu mépris la bu ñëw aussi gën a confirmer que ni mépris la de la part du Sénégal démb kàddu gi nga xamante ni seen jëwriñ bi ñu yore wàllu euh, transport moom la wax. Mhm. ku bëgg grève na nga grève ku mënul grève na nga na nga na nga ku bëgg liggéey na nga dem liggéey. état bi dina jël disposition pour que ñi bëgg a liggéey mën a liggéey. Mhm. xam nga yooyu sax ba mu koy wax. normal ah que que que l'état prenne euh, pour que ku bëgg a dawal sa taxi nga mën koo dawal. xam nga xam nga yenn yi sax ma li yëpp problème de compétence dafay taxaw Moustapha parce que bu ñu jëlee ñi nga xamante ni ñoom ñoo am xarañte bi am ñoo xamante ni xam nañ transport am na ñoo xamante ni ci nañu dund ba am tedd ci am ci lépp mhm. ñu jël leen écarté leen indi fa ay ñoo xamante ni benn mérite nañu am mooy nekk sœuru première dame président de la république loolu dafay poser problème tant que dañuy jël mérito méritocratie teg ko fële di def ay yoo xamante ni ay raccourci la mais genre situation di si jug man yaakaaroon naa ni jëwriñ bi bu toogee dem di jàkkaarloo sénégalais yi nga gis ay sénégalais yoo xamante ni sonn nañu Mhm. dañuy wax waxu euh, transporteurs yeeg yooyu mais bu ñu fàtte essence ak carburant. Mhm. ñoom ñoo koy consommer. effectivement mhm. sama classe gi benn yoon ngay jënd essence ci semaine bi. mais ñi nga xamante ni ñoom ñooy transporteurs yi balaa ñuy taal seen oto dañuy def plein. waaw taxi chaque guddi. au jour le jour mii taxi di Tata mii mii Ndiaga Ndiaye. bu ñuy joxe caabi bi day oto bi day nekk plein. mais yow nga mën a accepter trois jours économie bi demul. économie Sénégal nga xam ne dafa transversale jën bi dañ koy yóbbu ci yenn euh, secteur pour mun fa yegg Euh, ceeb beeg ainsi de suite. Mhm. ba bañ nañu sax ba ñu de ci période Covid dañu ni woon oto yi nga xamante ni dañuy transporter ay aliment euh, ay ay ay euh, lu mu tudd alimentation ak yooyu noonu. dañuy mhm. continuer di wéy dox mhm. même bu nekkee sax dañu jàll ci heure couvre bi parce que ñooñu mënuñu toog. waaye léegi situation boobu am yow jéemoo sax fexe ni am na ñoo xamante ni dañuy feebar au jour le jour. parce que feebar du lu ñuy waaj mhm. man mii di état du Sénégal dinaa nangul ñii seeni grève parce que def nañu li nga xamante mooy lu yoon santaane mhm. mais dinaa jël samay disposition ba malade bu amee ci benn bërëb dinañ ko jël transporter ko mhm. mais Moustapha mais est-ce que est-ce que euh, c'est bien que le ministre dise que euh, on va prendre les dispositions nangam mais est-ce que soo dégloo li Awa Diop Ndiaye di wax sànq Pape Makhtar est-ce que état wu Sénégal am na benn moyen pour contourner grève transporteur su fekkee ne Dakar dem dikk déjà euh, li mu mën a transporter bariwul boole ceeg j'ai vu à Diourbel ñu attaqué sax seen bus yi on se dit que ni toute façon nañ ñaan chauffeur bàyyi mais buñ ko nee également état bi mënu transport bi 14 pour cent kese la. Mhm. lépp privé bi moom moo koy gérer. est-ce normal bon. mën nañ nangu parce que dañu libéraliser aussi le secteur c'est comme ñoom ñoo ko libéraliser aussi yoon la am yeneen sénégalais yoo xamante ne dañu bëgg judd ci euh, liggéey ci transport bi mhm. ñu aussi ñu mën a am lenn loo xamante ne war nañ gis mën a jël mais yaakaar naa nit ñi bu ñu nekkee seeni droit parce que aussi ñii di liggéey mhm. yoon la ñu demander meilleures conditions de vie mais ñeneen ñi nga xamante ne ay usagers nañu état bi foofu la responsabilité am nekk. Mhm. waxoon na mën a fexe ba organiser wu telle sorte que urgence dinañ ko mën a évacuer. Mhm. ki nga xamante ne dafa feebar dinañ ko mën a jàppale mais ñeneen ñi nga xamante ne aussi dañu war a liggéey ñu wutal leen solution. lenn rek ma daaneel foofu Moussa euh, voilà. Mhm. Euh, dafa dafa nekk aussi lu doy waar parce que man yaakaar naa ni bu ñu nekkoon ci réew boo xamante ni dañuy respecter askan bi président bi xam ni ñi nga xamante ni ñoom ñooy daw ci ginnaaw bii si di yéeg ci ay charrette lenn. peut-être la leen ëpple mooy yàlla moom moo ni moom mooy doon président de la République mhm. mais du si juddu du ci xam-xam du ci du ci lenn mhm. mais malheureusement tey dafa mel ni ñoom ba ñu nekkee ci seen poste yu ñuy nekk dañu fàtte ni askan bi moo leen teg foofu ñu ne tey askan bi nekk di suuf di souffrir di daw ci ay kii ngay gis ñoo xamante ne ay magum jëm nañ dañuy dox ay kilomètres i mais benn message bu ndaw sax doo ko dégg te bu ñu leen woon ci biti France wala feneen benn nasaraan décédé na nga dégg ko mu def communiqué Mansour Faye masawu na askan wi non Mansour Faye <laughs> Mansour Faye bu masawoo askan bi aussi ni muy waxee dafa ko war a xoolaat parce que yàgg nay choqué sénégalais yi d'accord alors Mbacké Seck bala ñuy wéy ñoom euh, Pape Sané ak Mame Biram euh, bari na ay questions yoo xam ne euh, dégg nga ay interpellations yoo xam ne euh, dégg nga ko fii mais euh, soo traversé Dakar tey notamment heure yi nga xam ne moom la élèves yi wàcc 16h jàpp 17h man tey jaar naa université jëm Médina est-ce que quelque part doo ne c'est quand même surprenant surprenant que le gouvernement prévoit loolu lépp nan la koy gérer pendant au moins ces trois jours de grève là grève bi dafa leen bett wala comme dit Pa Mokhtar mépris la parce que il pense que bon c'est quelques Sénégalais qui man damay d'accord ak soxna si ci lu mu wax ci éveil de conscience Sénégalu 2021 mm-hmm. du Sénégalu 1970 du Sénégalu 1980 transporteur u 2021 bi c'est pas le même transport mm-hmm. c'est pas même transporteur les canaux de communication entre les les mêmes syndicats bokkul le fait que ñu mën a am unité d'action dans ce qu'ils font mm-hmm. prouve que am na pertinence dans la revendication pertinence revendication am na pertinence dans la revendication donc nit ñi dañuy nangu loolu. Mhm. que grève bi am na réussite parce qu'ils sont parvenus à paralyser le pays. Oui. il faut ñu nangu ko. que ces grévistes exiger am un interlocuteur privilégié de haut niveau. Mm -hmm. c'est leur droit. et le gouvernement l'a accepté. dañ koy nangu. Mhm. qu'un ministre puisse dire que mën naa waxal yeneen ministres yi lu ñuy nangu ci gouvernement la lu ñuy nangu la parce que un ministre peut la parole de tout un gouvernement mais su nekkee ni champ de la discussion dafa gën a yaatu ba mën a indi d'autres ministère comme les forces de défense et de sécurité xel mën na nangu loolu transporteurs yi revendiqué ñu jox leen ko neexul ci xol xale yi nga xam ne dañu toll ci jàngi ñu jàngi parce que mënuñu yegg fa ñuy jàngee ña leen jàngale yegg si ñëw que le pays soit paralysé neexul ci kenn du ci juddu du ci mbokk du ci du ci kenn mm-hmm. noonu mu paralysé Sénégal bu amee ci réew yu mag yi noonu la leen di paralysé le transport est nodal dans tous les pays du monde mm-hmm. donc mënuloo ko def spécificité sénégalaise noo ko jiñ incompétence benn nit benn groupe socio-professionnel moo jóg am ay revendications légitimes mmh. légitimes laa wax sur le parc Mhm. sur la sécurité, oui. sur euh, euh, le, le, transport, mmh. sur les, les pressions inutiles mhm. des forces de l'ordre et de sécurité mais boo génnee Sénégal am na ay pratiques yooyu gis biir Afrique doo ko gis Sénégal gis nañ boo duggee Afrique da ngay gis ay dëkk yu nga xam ni seeni voie principale ay buntu la am. Mhm. policiers yore ay ay herse yuy bënn pneu. teg char de combat ci yoon bi ñun am nañu des routes paisibles. mais difficulté su ñu amee parc bu vétuste. Mm-hmm. am ay pratique ak ay concessionnaires yi nga xam ni ils sont en de s'adapter pour chercher la bonne mesure. Mm-hmm. ensuite nag mën na am jafe-jafe dafa laaj ci autorité kilifa. Mm-hmm. fu mu mënti ne ci àdduna bi mu am une oreille attentive à l'intention des personnes yi nga xam ni moom lañ. est-ce que gouvernement am na ko cette oreille attentive là. yaakaar nañ ni am nañ ko parce que suñu ko amul woon. Mhm. bopp mën na dëgër ba bu ñu waxee nañu waxtaan mercredi du ñu waxtaan mercredi wala bu ñëwee jeudi du ñu waxtaan wala buñu ko waxee nañ ko yaatal du ñu ko yaatal. Mhm. man daal ci sama gëm-gëmu bopp. Mhm. Euh, dama gëm ni Sénégal dañ ko war a waxtaanee. jafe-jafe mënul ñàkk ci pays en développement jafe-jafe mënul ñàkk ci nature infrastructure routière jafe-jafe mënul ñàkk ci suñu parc automobile mhm. jafe-jafe mënul ñàkk sax en transporteur yi ak seen i employés dëgg la ce que bu ñu paree ci grève bi chauffeurs si duñu grève parce qu'ils sont maltraités par les par les transporteurs joxuñu leen condition de travail chauffeur bu mhm. màgget bu ci ne da ngay yalwaan mhm. kala doon liggéey la lu muy def moom ay oto ma ngi continuer daw mais amatoo doole joo liggéey amatoo xam-xam boo liggéeyee ban sécurité nga am. Mm-hmm. donc autant ñoom tey def nañu population bi ci mm-hmm. difficulté autant suba ñoom seen i propre employé mën nañu dem am ñoom. fi may tëjee daal fi may daaneelee mooy. Mm-hmm. waxtaan bu waree am nañu xam ni sénégal yi dañu changé kilifa gu war a wax ñëw ak les bonnes informations. li amoon bu njëkk seulement te lëndëmal nit ñi mënatul a nekk ci Sénégal bii ñu toll. Idrissa Seck loolu la àndeek Macky Sall mm-hmm. bu ñu dundee difficulté parce que li waa ji wax sànq dafa leer ñoom tàggat nañ seen bopp mm-hmm. ci toog bañ a liggéey ndax Covid bi un malheur a entraîné une résilience oui, absolument donc nit ñi dañuy analyser lu mm-hmm. baax ci li nga xam ne ci la ñu ne mais suñu dëkk kenn amul sañ-sañu paralyser ko ñu perte lu bare xale yi li ñuy waxuma sax perte en xaalis mais li ñuy perte ci xam-xam bu ñu waroon sol suñuy doom. ñu mhm. compétitif au plan mondial kenn mënu ko quantifier. mais mais est-ce que est-ce que quelque part yaa ngi wax ne euh, Sénégalu vingt et un ak euh, mënuñ mënul bokk ak Sénégal soixante dix ak yu demee noonu mais est-ce que c'est pas un danger quand pour euh, euh, les Sénégalais que nous sommes que un groupe de transporteurs quatorze syndicats ak nu ñu mën di toll mën a paralyser un pays comme ça on a l'impression que état bi amul benn moyen pour contrôler ko loolu waxtaan ak ñoom. mais Moustapha damaa mm-hmm. yaatal ci waxtaan. Mm-hmm. wax la même dëkk yu mag yi. Mm-hmm. bu transporteurs yi waxuma transporteurs yëpp. bu benn secteur u transport grévé rek mën na paralyser dëkk. muy contrôleur aérien yi muy pilote yi muy ligne ferroviaire yi muy transporteur. transport moo am doole ci dundu askan ak dundum réew. donc jaaduna Sénégal ñun qu'on soit pas une exception dans su amee grève transporteurs yi ñu yëg ko. mais li ci am solo mooy na am réaction appropriée. approprié mu munu ci insensible mhm. parce que moo instruire ministre bi pour mu dem rencontrer leen bi exigence yi yokkoo ci niveau de discussion bi mhm. mais dañoo am yeneen ministre yu ñëw teew ñëw teew très li am solo ci waxtaan bi mooy Mbacké am na loo wax ci Idrissa Seck mhm. nga ni loolu la àndee ki nga xamante ne mooy le président de la République Idrissa Seck mi ngi jiite institution bi tudd conseil économique social environnemental bu ma juumul il est question de social et d'économie te pourtant dégguñu nañ ko ci dégg xam nga conseil économique. la même on a entendu Innocence Ntap Ndiaye ah mais mais pas mais pas le nga ko waxee. Hmm. Hmm. Pape Matar xam mbir bu nekk dañ koy teg ci contexte am. conseil économique et social dafa dajale ay champion branche yu bari. Hmm. y compris de grands transporteurs. oui man Serigne Ndiagne Ndongo fa ko xamee. am na ay transporteurs yu mag yu fa nekk. war a jàllale. jafe-jafe yu seen secteur di dund ñu jàllale ko kilifa ga nekk foofu moom ci boppam ci na muy waxteen nag kilifa réew mi mu jàllale ko ci ñoom ñoom nag dañuy jël problème bi comme am na nii tey mhm. seen session bii di ñëw mën nañ ci waxtaan ci transporteurs yi képp ku ñu war a consulter auditionné la def ci étude ñu gëstu ko ba li ñu ciy génn day nekk benn réflexion fine et profonde. Mhm. ba bu ñu ko appliquer mu nekk solution pour le pays noonu la conseil économique et social doxee. Mhm. dafa am saisine am autosaisine ak saisine citoyenne. transporteurs yi mën nañ jël 5000 transporteurs. ñu signé seen pétition ñu teg ko ci table conseil économique social. Mm-hmm. obligé institution bi mu waxtaane seen problème. Mm-hmm. te li am solo ci waxtaan yooyu mooy dañuy dem vers des solutions. Mm-hmm. donc loolu Idrissa mënal na ko transporteur yi. bu waxtaanu conseil économique social see foofu. parce que servir askan wi rek moo tax.

transporteurs eh, aériens vous ne de travailler ci. ça donne la bonne source à l'information ah Pape il est là actuellement ça donne la bonne source à l'information waaw mais xam nga le souci euh, tey jii euh, bu ñu la dénkee benn kuréel kuréel bi ba nga koy jël nga joxoon ni que ay prétexte ñu bëri jàppoon ni ay prétexte la hmm. nga ni Sénégal dafa nekk ci situation yu doy waar yu difficile que da nga ñëw tey ji pour wane sa xarañte yaakaar naan situation bi bu taxawee yow nga jiite institution waxuma sax ngay xaaju saisir la au moins war nga mën a def même bu nekkee benn communiqué ma saw askan bi parce que yaa jiite aussi conseil économique social et